بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأشهد أن لا إله إلا الله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد صلى الله عليه وسلم خير من صلى وصام وحج صلوات ربي وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم يقول جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala moom mi farataal aj ci jaamam yi ci képp ku ko man benn yoon ci sa dund ñuy seere ne amul kenn ku ñu war a jaamu ca dëgg ku dul moom subhanahu wa taala te war ñu ko bokkaale kenn moom mi jurul kenn te kenn juru ko te nekkul nawle ci kenn di seere ni ci sango muhammad sallallahu alayhi wa sallam soppem la xaritam la jaamam la ndawam la mooy ki gën képp kuy jullee ko woor ak aj yàlla ñu yàlla fayal ko moom ak i saxaabaam ak képp ku topp njubam ba ba borom bi subhanahu wa taala di doon suufam si ñuy dénk suñu bopp mbokk yi di leen dénk ragal borom bi subhanahu wa taala comme ni ñu ko dénkee ci alquran ci ay bërëb yu farantikoo muy wax ni ay yéen ñi gëm na ngeen ma ragal dëgg-dëgg ragal rikk bu leen faatu mukk da ngeen lu dul da ngeen ma jébbal seen bopp mbokk yi suñu xutba yi tey bi iznillahi taala dañ koy soppi suñu xutba yee weesu ngir màggaayu jaamu yàlla bi nekk suñu kanam muy alxajj ñu waxoon ni benn la ci ponk islaam juróom te li ci borom bi subhanahu wa taala nam ci ay xikmaam mooy ni képp koo xamante ni dem nga ci bërëb boobu ba yàlla nangul la di nga wàññeeku sa dëkk mel ni kuy soog gane àdduna ci way juróom bu jigéen ci set wet ci bàkkaar ñu ñaanal suñu xujaaji yi nekk ci wàccaay yàlla yóbbu leen ci jàmm yàlla delloo si leen ci jàmm te lépp luñ ko fa jàmm yàlla na ko borom subhanahu wa taala nangu suñu xutba ji tey ci anwaa'ul xajji lañ ko fas yéene amal mooy xeeti at yi am ñu jële ci imaamu nawawi mu ni wa qad inaqada al ijmaacu ala aljawaaz al ifraadi wa tamattuci wal qiraan mu ni boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ci ni kii dem aji màkka moom xaw mu tànn ñett yi nga xamante ni boroom xam-xam yépp dëppoo nañ ci ne boo ci def baax na muy al ifraad muy aj kese bu ànd la umra wa tamattu muy aj muy umra gu ànd ak aj gu ñu lëkkalewul wal qiraan moom mooy aj gu ñu lëkkale ak umra ñetti borom xam-xam yëpp dëppoo nañ ci jawaazam ba ñëwee suñu yaay Aïcha mu ngi nettali ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di àndoon na ak ñoom ci aj ga mu ni xarajna maa rasul alayhi salatu wasalaam fa qaala yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni leen képp ku bëgg ci yéen yéene pour aj kese ak umra pour aj ak umra na ko def bi xajjin wa umra fal yafal wa man araada an yuhilla bi xajjin fal yuhlil koo xamante ne nag moom aj rek la bëgg a def it nee na na ko yéene wa man araada an yuhilla bi umratin fal yafaal képp koo xamante ne nag umra rek la bëgg a def na ko yéene su yaay Aysa ne man bokk naa ci ñi nga xamante ni umra rek lañ defoon mu ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam daal di yéene ajam ñi ci des ci mbooloo bi ñuy yéene aj ak umra ñuy yéene aj kese kon loolu tegtal la ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam moom moo ko digle bu ñëwee nag ci bu njëkk bi di xajjul ifraad muy aju ifraad muy aju kese fa hada nawm min awaa'i alxajji yanwi alxaj alxaaj inda ixraamihi lilxajji faqat moom day yéene rek ni aj rek lay def yuaddi alumra baada alintihai min manasiki alxajji ida arada almufrid ida arada almufrid li hadi laa hadiya alayhi su demee ba aj gi jeex nag su ko neexee moom mën naa def umraam tatawuan waaye moom mi jël ifraat yow xamal ni hadi yi doo ko doo ko rey maanaam doo doo leen di gàtt ci bisu tabaski boo ñëwee nag ci xutuwaat yi mooy ki jël ifraat moom étape yi mu war a def yow mi tànn ni man ifraat laa bëgg a def ajub kese lan mooy say xutuwaat bi ci njëkk mooy yaxrumu alxaaj lil xajji waxda min al miqaati qailan labbayka xajjan mooy ca miiqa ba nga xam ne mënoo defee fenn ihram bi fu dul foofu waxoon nañ ko ci xutba bi weesu ginnaaw bi nga watoo sa karaw yi nga war a wat muy poqataan ni karaw suuf watit sa bu dee sa moustache bu dee sikkim nga am noonu nee na mën nga ko bàyyi noonu ngir roy ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam sunnaam waaye nga dagg say we boo noppee nga laal parfum daal di wodd bu dee góor taraxlaayu sa benn làmbaay bu dee jigéen na mën ngaa sol lu ñu ñëw góor du sol leen lu ñu ñëw te doo sol baxana foofu nga yéenee ginnaaw bi nga jullee sa ñaari rakka rakka bu njëkk bi nga tari fatihatul kitab wa qul yaa kafirun ñaari rakka muy fatihatul kitab wal ixlaas soo noppee nag ci ngay wax labbayk allahumma xajjan yow yàlla wuy si naa la ci aj ndax yow loolu nga tànn yéene bi yéen waxoon nañ ne mooy yéene bi ngay wax ci kaw bu doon julli doo ko wax ci kaw kon nii nga xamante ne mu ngay waxee ci bu dee aj kon al ihramu fil miqat mooy lay njëkk la ngay def nga jub dëgmal sa waruwaay tàmbalee wax labbayk allahuma labbayk labbayk la sharika lak labbayk inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak nee na yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba mu yéegee ci taswa la ko tàmbalee wax ñii ni moom bu fekkente ni noppi nga ci ihram bi rek mën nga koo tàmbalee wax bu ko defee kañ ngay noppee wax labbayka yooyu noonu nee na bu dee góor la na nga koy wax ca kaw mais bu dee jigéen nag na koy wax ca suuf ba ba ngay dem ba gis kaaba ga nga xamante ni ci nga war a defaat sa tawaaf bi nga xamante ni mooy tawaaful ifaada tawaaful qudum nee na boobaa ci ngay dagg sa talbiya bi wante teewul nag ni labbayka ba mën nga koo def ci jamiil awqaat wa zaman ci jamono yi nga xamante ni yaa ngi ci aj bu dee yow ifraat nga def bu ko defee boo ñëwee ba ci kaaba gi la ngay def muy sa deuxième étape mooy tawaaful qudum mooy tawaaf bi ngay nuyoo kaaba gi tawaaful qudum soo koy def waxoon nañ li nga xamante ne mooy sunna ci góor mooy nga wuññi sa mbagg mu droite tàmbalee ci xajarul aswad di wër ba ba nga egg ci sa septième tour soo noppee nga julli ñaari rakka muy sunnay tawaaf ñu waxoon ne bokk na tamit ci sunna yi booy daw sa ñetti tuur yi nga raml mooy nga ñukk nga ñukk ñetti tuur yi bu dee ni nag xatul lañ wax bu dee dafa xat moom bu ko def ndax mën nga cee gaañ nit wala kenn gaañ la kon loolu sunna yi la bokk boo noppee ci tawaaful qudum bi summa yas'a bayna safa wal marwa nga dem defi ji safa ak marwa ci tawaaful qudum yow mi jël ifraat ndax daw bi ngay daw safa ak marwa ci tawaaful qudum bi day tax boo ñëwaatee ci bisu tabaski bi wala booy des ci tawaaful ifada doo dawaat safa ak marwa ci yow mi jël ifraat bu ci noppee ci daw bi mu daw safa ak marwa ci ki jël ifraat moom du watu du laal dara ci karawam ndax ihram gi moom ba tey dañagul ci moom ndax ifraat la jël ki jël ifraat ba nga defee sa yéene ci miiqa ba ba ba aj gay jeex doo dindi sa làmbaay bi moo tax ñu la doon daggaloo say we di la watloo say karaw ndax yooyu yëpp day nekk mujj gi lu xaraam ci yow nga def ko bi nga xamante ne ak ci ihraam bi bu ko defee fil yawmi saamin yow da ngay delluwaat sa hôtel ba ci bisu juróom ñetteel bi mu yawmu tarwiya boobu la ñëpp di jóge nag fii nga xamante ni mooy Makka dëgmal fi ñuy wax mun na ca tant ya la ngay def te mun na it mooy boo egsee ci tisbaar bi comme nii tisbaar gi da nga koy wàññi ñaari ràkk nga koy julli ca mbooloo ma it waaye doo ko boole ak tàkkusaan wàññi rek lay doon al qasru bu tàkkusaan jotee it ñaari ràkkaa ngay julli bu ci nekk faatiha ak saar lay àndal comme al qasru fi salaa wàññi julli waaye ba tey doo ko boole timis bu jotee nga julli timis ci waxtoon gée bu jotee nga julli gée ci waxtam waaye ñaari rakk nga koy julli moom tamit kon salaatu rubaa yi julli ñeent yi ñoom la ñuy wàññi def ko ay ñaar ñaar waaye bu nekk ci waxtam koy julli loolu mi ngi xew ci juróom-ñetteelu fan bi nga xamante ni yaa ngi ca foofu di mun na te juróom-ñeenteelu fan ba moom mooy yawmul arafa mooy taxawaayu arafa bu nu waxee taxawaayu arafa it nekkul da ngay dem arafa taxaw fa rek ba ngoon jot waaye am na toog am na taxaw waaye teewaay ga lañu wax teew ci ca bërëb ba muy teew ci arafa foofu it boo fa yeggee te waxoon nañ ci xutba bi passé nii li yenn saa saam digle mooy nga dem ci ca zawal ba zawal mooy comme waxtu wi nga xam ci la ñuy waaj pour dem juma bu la fa tisbaar fekkee ca arafa di nga julli tisbaar ñaari rakka boole koog tàkkusaan da ngay julli ñaari rakka sëlmal bu ci nekk day ànd ak iqaama soo paree nga julli tàkkusaan timis fa la lay fekk waaye doo ko fa jullee fa ngay toog ba timis jot ngeen soog faa jóge dem fee nga xamante ne moom mooy musdalifa summa yatawajjahu ila musdalifa la ñuy def ca musdalifa nag mooy for fa xeer yi nga xamante ne moom nga war a sànni ci jamaraat yi bu ko defee biteel yi nga xamante ne moom nga jëloon muy biteel ndaw yi di ca naan boo demee ca musdalifa ca ngay forcé xeer yu tolloog soixante dix xeer soixante dix foofu it ci musdalifa ba nga fa egsee jàppal ne julli woo woon timis fee nga bàyyi ginnaaw muy arafa kon da ngay julli timis ñett kenn du ko wàññi soo noppee nga toftal ca gee ñaar rakk koy julli kon da ngay jama waaye da ngay wàññi li nga xamante ne moom mooy géegi foofu nag la ca gën mooy nga toog fa ba guddi gi xaaj wala fajar mooy la ca gën waaye ki nga xam ne dafa am ngant nag moom mën naa jaar jël ay xeeram continuer dem fi nga xamante ne moom mooy mun na kon teew bi ngay teew ca Musdalifa mu nekk bërëb boo xamante ni ginnaaw bi nga jullee fajar da nga fa war a toog comme yoon saa salaam defoon di ñaan di ñaan ba suruuq nga soog faa jóge dem fee nga xamante ne moom mooy ca sànni jamra ga sànni jamra ca mun na boo fa demee it préparé nañ fa nga war a sànni sa sànni gu njëkk ci suba soos nga xam te ne mooy suba yi bisub tabaski la nga fay def mooy juróom ñaari xeer ngay sànni te jam te jamra moom la ñuy wax ca jamratal al aqaba mooy ca mbalka mu mag ba waajal nañ ko wàccaay goo xamante ni mënoo jaar ci beneen yoon pour sànni ca beneen mbalka bu dul mbalka moom bu ko defee nga sànni say jamaraat bu ci nekk nga jël sa xeer bul sori fi nga xamante ne mooy mbalka ba bala ngay sànni du ca tàbbi waaye bul ko jege it ba mu mel ne da nga koy yoor nekkul it da ngay jël juróom-ñaari xeer yëpp sànnee ko fa waaye da ngay jël benn nga ni allahu akbar sànn beneen nga jël allahu akbar sànn ba juróom-ñaari jeex nga soogut wëlbatiku fa ngay dem nag ca bis boobu nga xamante ni mooy bisu fukkeel ci zulhijja muy bisu tabaski lan la dese mooy mën nga wat sa karaw waaye yow doo tuur deret doo doo rey da ngay watu boo mënee nga dem defi ji sa tawaaful ifaada muy beneen ponk bi la dese nga dem defi ko bu dee nag da nga ànd ak convoi boo xamante ni ak ni aj gi baree mbooloo te réer yomb fa te boo réeree taminoo màkk mën nga mën na jafe ci yow na nga wu ànd ak ñi nga xamante ni ñoo lay convoyé ba ci seen tant ya nga toog fa toogaayu onzième jour douzième jour treizième jour moom mooy bu ñu tabaskee ba ci ëllëg sa gennaaw ëllëg sa wala gennaaw ci ëllëg sa ñetti fan yooyu noonu moom la alquran wax ni fa man taajjala fi yawmayn fala isma alayhi wa man taaxara fala isma alayhi liman ittaqa koo xamante ni ñaari fan def koo ko fa tam bëgg a delluwaat màkka nee na loolu dara nekku ca ki toog nag def ñetti fan it kooku dara nekku ca waaye ñetti fan wala ñaari fan ya ngay toog ca mun na mooy ñetti fan yi nga xamante ne wala ñaari fan yi ngay xëy ca tisbaar dem di sànni say jamara sànni yi ngay sànni jamara nag foofu da ngay sànni ca jamratu as-sughra juróom-ñaar ni ma wax léegi ne ni noonu ngay sànnee ca bisu fukkeel ba jamara yi noonu ngay sànnee jamara yi boo ca noppee ca sughra da ngay wël da ngay wetu boo téenee di nga gis fu ñu bind alqibla ay zaaru pancart la mooy ne léegi da nga war a taxaw foofu nga ñaan bur jàkkaarloog mbalka bi di ñaan waaye da ngay moy mbalka bi taxaw ñaan noonu la ko yam saa salaam defee woon boo fa jógee nga dem ci aljamra al wusta mooy bi nekk ci milieu bi foofu it nga sànni juróom-ñaar comme na nga ko sànnee fële boo fa jógee nga wetuwaat taxawaat ñaan ñaan ñaan ba mu des benn muy bu mag bi nga xamante ne mooy jamratul kubra nga daal di fay sànni juróom-ñaar yi des muy vingt et un xeer yoo xam ne moom nga sànni ci bis boobu muy premier mooy onzième jour bi kon vingt et un fois trois moom moo lay jox soixante trois xeer boo ci dollee sept yi nga sànniwoon fee moom mooy soixante dix kon moo taxoon ñu ni soixante dix ngay for wala nga for lu ko ëpp balaa li ngay sànni manqué bu fekkente ni ñaari fan ngay sànni soixante dix yëpp doo ko sànni waaye bu fekkente ni ñetti fan yëpp ngay toog ca mun na pour sànni sa xeer dafay mat. kon bu ko defee yow sa arkaan yi yow mi jël ifraad def nga yëpp te defoo alhadi ndax bokku ci woon la lay dese ci sa aj gi mooy tawaaful widaa mooy tawaaf bi ngay wëree kaaba gi ngir tàggu ko te loolu boo demee bañ ne la bis sàngam nga war a dem ci ëllëg sa ci ngay dem nga def sa tawaaful widaa sooga ñu jël say bagage delluwaat sa dëkk aqul ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بقي جنا بن سنتا تيبرم سبحانه وتعالى بجل بسلمة يونتي صلى الله عليه وسلم نيواتي بنين فصن تي melokaan aj yi te képp kuy aj war cee tànn benn ginnaaw bi ñu wax leen muy ifraat ñu ngi ñëwaat ci bi ñuy wax alqiraan alqiraan moom it la nga yéene ka koy def mooy da nga fas yéene def aj bu ñu lëkkale ak umra aj ak umra boo lëkkale waaye doo ko séparé bu ko defee moom it da nga yéene ca miiqa ba comme te defoon ifraat la mu def nga wax labbayk allahuma umratan fi hajjatin yow yàlla wuy si naa la ci umra bu ñu lëkkale ak aj xutuwaa ji nag état bi ngay def comme ni ñu waxee woon léegi nga xamante ni mooy tëggoon ak ifraat mooy yéenay bokk ci mii xaba la ngeen di def mooy wàccaay soo ca noppee da ngay dem def ji tawaaful kudum comme ki defoon ifraat soo ca noppee nga def asaa'i banna safa wal marwa yow mi def qiraan tamit daw bi ngay def li di safa ak marwa boo ñëwaatee ci tawaafu ifaada doo doo doo kiiwaat doo dawaat safa ak marwa kon ginnaaw as-sa'yi bayna safa wal marwa ci tawaaful kudum yi nga def yaa ngi defaat ci yawmi saamin ci juróom-ñetteel fan ba comme ka defoon ifraat la mu def mooy ngeen dem ca mun na ka defoon ifraat la muy def loolu ngay def ci wàññi julli ga ba ci juróom-ñeenteeli fan ba mu yawmu arafa ngeen génn dem ci arafa ci waxtu bi nga xamante ni moom la ñu waxoon tamit ci kiy def ifraat ci la war a génn pour dem fee di ci arafa boo jógee arafa tat yow mi def tamattu da ngay dem ca musdalifa for ay xeer comme que def ifraat na mu def ak ci li mu xeer yi mu jël soo ca noppee nag ca musdalifa ca ëllëg sa comme que defoon ifraat na mu def loolu ngay def mooy dem sànni say jamro muy juróom-ñaar ya ngay sànni soo fa jógee yow mi def xiraan da ngay tuur alhaddi da ngay wat def sa karaw wala nga wat lépp waaye yoon saa salaam moom daf li mu digle moom mooy nga wat lépp su mën a nekk bu ko defee bu dee jigéen comme que def xajju al ifraat moom bu demee ba war a watu ba war a watu la muy dagg ca moom mooy day jël ci léttam rek lu tolloog unmu la moom mooy catu baaram ni nga dagg loolu bu ko defee loolu ngay def yow mi nga xamante ni yow yaa jël alqiran yow da ngay tuur alhaddi da ngay rey gàtt lalay dagan nag mooy ataxallul al awwal mooy lala xaraamoon ca ba nga xarmalee léegi dagan na la ci bisu tabaski ba mën nga dem sole ji luy ñaw comme ki def ifraat tamit noonu mën na ko def bu ko defee bu dee mën nga dem def sa tawaaful ifaada ca bisu fukkeel bi comme ko waxoon kañu waxoon ci ifraat nga def ko bu fekkente ni mënul nekk nga delluwaat sa tànt ya ba ba ngeen delluwaat fee nga xamante ne moom mooy Makka ngeen leen dafa defe ji seen tawaafu ifaada ndax ci ponk yi la bokk bu ko defee ki nga xamante ni mooy ki def alqiran moom la koy wuutale ak ki def ifraat mooy moom day tuur deret waaye la ñuy bokk ñoom ñaar moom mooy seen ihram duñ ko dindi bu ñu watu lu dul bu ñu watoo te bu ñu xasee ba watu ci bisu fukkeel muy bisu tabaski bi la leen xaraamoon di leen dagal ba mu des jigéen mu dee ne dañoo àndoon na seen soxna duñ ko laal waaye bu ñu demee nag ba def seen tawaaful ifaada foofu nag moom lépp lu la xaraamoon ca ba nga defee sa ihram balay daal di dagal nga dem toog mun naa def fa say fan yi nga xamante ne ki defoon ifraat moom lu def yow it la lay dese moom mooy tawaaful bidaa yàkka defoon ifraat yéen a bokk la leen di war bi mujj nag moom mooy xajju tamatto mooy ki nga xamante ni la muy la mu tànn muy xajju tamato moom day umra summeeku def aj kon dafa def umra ak aj goo xam ne kenn du ko lëkkale kon moom la muy def mooy jamono yu mu egsee Makka même bu doon jamono jii la dem nga ni tamato laa bëgg a def boo demee ca miiqa ba ngay armale def ka defoon ifraat ak ak xiran lam def jóge fa dem Makka def sa tawaaf muy sa tawaafu sa tawaaful umra soo fa jógee nga dem def ji safa ak marwa daal di summeeku safa ak marwa wattu daal di summeeku kooku umraam jeex na mu dese ko aj aj ji ko dese nag moom lay bàyyi ba ci yow mustaamin muy huitième jour ba ca lay ànd ak te defoon ka def xiraan ak ka def ifraad yëpp dem ca mun na bokk xutuwaat yi nga xamante ne moom la ñuy defi ji leneen li muy bokk ak ci def xiraan mooy moom dafay tuur dafay ay gàtt alhad yi da koy war leneen li ci des yëpp ñoom ñoo koy bokk comme niñ ko waxee léegi ci yu weesu ki nga xamante ne nag amul had yi amul lu mu jëndee lu ñu rey rey gi nag newul ni dara la ñuy dem ku nekk naan tànn naa bi waaye day bokk sax léeg-léeg ci package bi ñu ni nangam ci ay riyaal moom mooy li mat hadiya bi nga daal di koy verser ñu jox la sa ticket jeex na bisu enchir bi mooy bisu fukkeel fan bi doo li jënt ndax reyal nañ ndax reyal na génne nga ko pare waaye ki nga amul nag kooku fa salaasatu ayyaamin fil hajj wa sabaatun iza rajaatum foofu ngay woore ñetti fan yeneen juróom-ñaari fan yi boo dellu see sa réew ca ngay woor yeneen juróom-ñaari fan muy fukki fan loolu mooy ki nga xamante ni dafa jël xiiraan wala mu jël tamattu te amul hadi kooku ay woor la koy remplacer moom it la nga xamante mooy la koy dese ñoom ñëpp mooy tawaaful bidaa mooy tawaaf nga xam ne ñu tàggatoo ki ñu teggil tawaafu tàggatoo gi nag mooy jigéen ji nga xam ne daa dem ba tawaafu tàggatoo jot mu gis xayd kooku du mën a tawaaf ndax tawaaf mooy ak julli boo xam ne dafa ànd ak wax faw nga ànd ak laab biir ak laab bi soog koo def kon yàlla yombal yàlla yombalal suñu xujjaat yi seenu aj te lépp lu fa borom bis luñ fa ñaan borom subhanahu wa taala yàlla na ko yàlla nangu rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabu rahim rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in qumu ila salati yarhamkumullah